donc li nga xamante ni moom laa bëggoon wax aussi mooy bi fi Ousmane Sonko ñëwee waxoon nañ ko cohabitation lañ waxoon par force mooy am yàlla dimbali nañu loolu am cohabitation par te lii mu ngi soog am ci Sénégal dama dégg benn analyse bërki démb bu muy wax day muy wax xamu si dara nee na cohabitation du lu bees Senghor ak Mamadou Dia cohabitation la woon déedéet boobu régime parlementaire la ñu boobu président assemblée nationale moo ëppoon doole président de la Mamadou Dia moo yor li nga xamante ni mooy pouvoir c'est comme ça que ça s'est passé mais bii li xew France ba ñu dem boo Ndiaye moo xew fii te Serigne Moustapha Sy waxoon na ko waxoon na ko da nga mu yoon ma nañu bàyyi ba Macron mucc ba pare Macron mu xëy Macron daanu alors tey Macky Sall par force parce que nag li résultat yi génne mooy boo dajalee opposition bi yëpp am nañ juróom-ñett fukki député ak ñeent juróom ñetti fukki député ak benn moo ci des moom la Macky Sall am fan lay jaar ba fal président assemblée nationale fan lay jaar ba fal premier ministre te waxtaanu la opposition bi fan lay jaar ba nommé ay euh, membre gouvernement te waxtaanu la opposition bi fan lay jaar ba jàllale loi yi te waxtaanu la opposition bi loolu mooy cohabitation ñii wax naan cohabitation day tàndal réew xamuñu li ñuy wax adduna moo toll foofu donc nañu sant ci turu leader yi xam naa ni danañ ko defal seen bopp nañu sant askanu Sénégal ñoom li nga xam ne jël nañ seen responsabilité fexe ba tey cohabitation ak Macky Sall am donc incha allah danañu dem assemblée nationale jël présidence su assemblée nationale bi pour l'opposition toute l'opposition réunie nag laa wax ñëpp képp ku bokk opposition yaa ngi si biir parce que 84 députés la ñuy am proposé li nga xamante ni mooy premier ministre former les di du gouvernement doxal te nag li ci am solo mooy Macky Sall moom abaan na gas yi na jàpp ni troisième mandat moom fii ci mi moom dañ koy tere te jeex na moom amatul na parce que nag caaxaan baaxul troisième mandat pare na ci li ko def parce que ku ne xam ne ni amuñu moom benn problème amuñu moom benn xaar ma yàlla c'est un Sénégal li ñuy ay Sénégalais pataas sama gënal pomme ku ne sañ na ko wax bokk bokkuñu APR opposition lañ bokk ñi bokk APR nee nañ bokkuñu opposition APR lañ bokk ku ci ne sañ nga ko wax waaye nag du tere ñu wax ko dëgg dëgg gi koy wax mooy def nga juróom ñaar ñu dolli la juróom muy fukk ak ñaar loolu bu la doyul dara dootu la doy bu la fukki at ak ñaar ci bokk réewu Sénégal doyul suñ la jox joxaatee yeneen fukki at ak ñaar du la doy y a vie après la présidence de la République na tànn ku ko neex ci waa Benno Bokk Yaakaar wala ci waa APR def ko candidat te permettre sénégalais yi ñu fan ki leen neex en 2024 te moom du ci ko lii mooy wax ci beneen mbir bi ma bëgg a wax nag mooy te loolu ça me tient kër cœur et je prends le peuple sénégalais à di jël leader yi aussi ñu jël seen responsabilité gis nga ne fulla mooy jaay daqaar wala moo mos jeexal ko mënuñu ñëw dagaan baañu askan wi ci turu opposition ba pare nar a dugg assemblée national war peuple sénégalais boobu war opposition boobu li ma bëgg a wax mooy sunu 84 députés yi fii ak assemblée nationale bi di jeex moo xam fii ak ñaari at la moo xam fii ak juróomi at la képp ku ci war a def Pastef ci yow dañ ko war a jëflante ak yow parce que amuñu droit war parce que tey Macky Sall lenn moo ko dese 81 députés yi mu am. mu jéem am ñaar ñu mu jënd walla ñett ñu mu jënd ngir am une majorité confortable à l'Assemblée nationale mën a fal président mën a fal les membres du bureau mën a fal le commissions sur la base de la corruption loolu kenn du ko nangu man je prends l'engagement en tant que député bépp député boo xamante ni opposition moo la fal nga dugg assemblée nationale def leneen dem ci Macky Sall dinaa ko jëflante ak yow